asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñoo ngi marsawu sénégalais yépp yi nga xam ni démb yow nañ gis euh, wax ju ñàkk teggin ji nga xam ni moom la benn journaliste bu tudd Mamadou Ibra wax jëmale ko ci sunu visite bi nga xam ni moom lañu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir dalaloon ñu ca Touba ñun waa coalition citoyenne la peuple mu jël nag ñaar ci ñun wax ni Serigne Mountakha waru leen woon resevoir kon moom mu jàppee boppam ni am na dayo boo xam ne war na koo may muy sàkkal Serigne Mountakha sunu sang bu tedd bi kan la war a ak kum warul a recevoir ñu leen di xamal ni wax jooju man dama ne woon sax duma ci topp parce wax dëgg yàlla ki ko wax. man fàtte woon naa ni sax mi ngi Sénégal sànq rek dem naa xoolaat émission yi nga xam moom lay def gis naa ni sénégalais yi duñ ko seetaan ndaxte émission boobu muy def di ko tuddee jury du dimanche boo xoolee mënta am lu ëpp euh, ñaari téeméeri nit wala ñetti téeméeri nit yu koy seetaan pour mu mat ko dana dem ay weer wala lu ko ëpp mën nañoo wax sax ay at. kon nag journaliste boobu ñun dañu jàpp ni journaliste bu nekk en perte de maanaam moom daa xewi xewi waale journaliste yi nga xam ne ñoom la yóbbaale woon ci groupe de presse am boobu nga xam ne kenn xamu leen kon nag moom lii mu def jàpp naa ne day jàppale rek camp mbokk jàppale camp bi nga bokk nag wërta tax ngay jéem a xotti war ma suñuy kilifa parce que sëñ Mountakha Mbacké ku ko xam xam ne defar dong ci la yëngutu kon nag di taxaw moom ci arrogance bu leer muy dëgg yàlla loo xam ni metti na sénégalais bu ko seetaan loolu rek la Mamadou Ibra Kane def ñu koy xamal nag moom Mamadou Ibra Kane mooy kan moom mooy kan bay sàkk ki nga xam ne moom la xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké war a recevoir ak ki mu warta recevoir moom mooy kan moom sa moom moom moom Mamadou Ibra donc il faut ñu respecter sénégalais yi leen xamal ni coalition citoyenne le peuple ñun ñi fa nekk ñun respecter leen ci réew mi ñooñu muy lim valeurs yi nekk ci ñoom man gisuma ko ci moom moom Mamadou Ibra Kane parce que ci intérêt rek lay dox comme noonu ko naataangoom boobu muy feelu ma jàmbal jaañ di defee kon nag jàpp naa ni euh, ñàkk a xam ñooñu moo tax mu wax loolu ci ñoom saaga moo gën fuuf koo xam ne dangay sàcc alalu askan wi di ko def ci ay immeuble di sàcc alalu askan wi di ko rawale te loolu gis nañ ko fi ci réew mi ñooñu ay nit ñu am valeur lañ muy Clédor Sène ak Assane Diouf kenn xamewu leen ci caaxaan ñuy taxaw di liggéeyal seen réew sénégalais yi naw leen ndax fi ñu taxaw ak seen taxawaay kon nag yow munoo taxaw di yàq deru nit ñi ak di jéem a euh, salfaañe li nga xam ne moom lañ am ñun àq ci sunu sang bu tedd bi war a dem ziyaar ko sant ko gërëm ko ndax kàddoom yu rafet yi mu jël euh, ci li nga xam ne moom moo fi xew mu wis ci ndox mu sedd ñépp rafetlu ko Sénégal yow ngay ñëw di yee fitna yow ma ma ma yow Mamadou Ibra Kane bay indi sax naan ethnicisme ethnicisme ñi nga àndal ñoom ñoo fi indi fii kenn mus fee xam affaire boddi compte fii Sénégal ci nguuru président Macky Sall 2012 ak léegi lañ ko fi gis kon nag yow Mamadou euh, yow Mamadou Ibra Kane tu as raté une excellente occasion de te taire parce que yow amoo lenn loo xam ne war nga ko mën a jàngal kenn ci réew mi parce que yow si boppam yow ku ne mën naa xam ni nga xam ne moom nga créer sa groupe euh, euh, sa groupe de presse boobu euh, nga xam ne kenn xamu ko te ngal nit di di wax ba léegi moom kan moo nekk ci ginnaawam kon nag nga leeral loolu ñan ñoo nekk ci sa ginnaaw ba sénégalais yi sa groupe de presse seen groupe de presse bii nga teg intéressé wu leen kenn seetaanu leen bu nit ñuy wax ci média sax dañ leen di fàtte. kon nag yow war ngaa mën a wax ci loolu moo gën nga nekk ci layam-layam yi ak di def yëfu tappale ak di jéem a lambar-lambari ci xelu nit ñi kon nag Mahamadou du Kane yamal sa place cuuj dee xam lekkam yow sénégalais yi fàtte woon nañ la kon nag tey nii nga dugge bu dee da nga ci doon wut ñu fàttaliku la kon la jëkk maa ngi sant ñëpp di leen gërëm